alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala mbokk yi asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ndokkeel si koor gi di ñaan yàlla mu nangul ñu nangul leen suñu xadisu tey xadisu ubadat ibnu saamit ubaada dafa nekkoon di jàngale xam-xam di jàngale li mu daan jële ci yonantu bi alayhi salatu wasalaam ndax ci ñi àndoon ak moom taxoon ak moom la bokk bi mu benn bis kenn ci ay ndongam di as-Sunaabihi yi dafa dugg ci moom fekk ko mu nekk ci lal lalu lalu faatu lalu dee euh, mu ñëw di jooy mu ne ko bul jooy di waxtaan ak moom di ko dalal ne ko lépp lu ma mës a dégg ci yonent bi alayhi salaatu salaam ci ay xadiitam yu mu daan net lim ñu daan nettali li ko jàngal ci xam-xam lépp nettali naa leen ko ba mu des benn xadiis boo xam ne nettali wul ma leen ko woon waaye tey dinaa leen ko nettali dégg naa samitu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul man shahida an laa ilaha illa wa anna muhammadan rasulullah xaramahu llahu ala nnaar ku seede waxul ku wax ku seede ne amul kenn wala lenn lu ñuy jaamu ci dëgg yàlla amul kenn wala lenn lu ñu war a jaamu jàppee ko yàlla di ñuy jaamu di ko nangul di ko wommatul di ko toroxlul ku dul yàlla mi nga xam ne moo sàkk jaam ñi seede ne muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndawul yàlla la yàlla moo ko yónni ci jaam ñi yàlla dina araamal ci moom safara xadis boobu mu ngi saxiixu muslim ak musnad al imaam ahmad mu nekk xadis bu màgg boo xam ne day wax ñaari tànk yi nga xam ne ci la jullit di taxawee nga xamante ni moom mooy dëgg-dëgg liy taawul islaamam di diineem te mooy liñ tuddee tawxid bi nga xam ne mooy tawxidu al uluhiya ak tawxid bi nga xam ne mooy tawxidul mutabaa mooy wéetal gi muy wéetal yàlla ak kennal gi mu kennal yàlla subhaanahu wa taala ci nangoo jàpp ne yàlla mooy yàlla yàlla mi nga xamante ne bi moo sàkk moo moom mooy rey mooy wërsëgal mooy taxawu jaam ñi doxal seen mbir lépp jaam ñi ci loxoom la lekk moom yàlla moom subhaanahu wa taala moom rek moo yelloo ñu jaamu ko yaa ayuha nnaasu ubudu rabbakum alladi xalaqakum walladina min qablikum laallakum tattaquun alladi jacala lakum al arda firashan wa alsamaa binaan wa anzala min alsamaai maan fa axraja bihi min althamarati risqan lakum fala taj'alu lillahi andaadan wa antum taalamun fala taj'alu lillahi andaadan wa antum taalamun yàlla subhaanahu wa taala moo sàkk moo tàggat àdduna bi yëpp li fi nekk yàlla moo ko fi def kon moom yàlla moom nga xam ni amul kenn kuñ koy mën a bokkaaleel ci moomeelam ak sañ-sañam ak àqam yooyu naka noonu tamit li nga xamante ni bi mooy àquk njaamu ci jaam ñi moom rek moo ko am moom rek la jaamam ñi mu sàkk moom leen defal leen seen lépp wa aataakum min kulli ma saaltumuhu lépp yàlla moom moo ko defal jaam ñi lépp luñ soxla rek yàlla defal na leen ko yàlla moomu amul kenn tamit kuñ koy bokkaaleel wala ñu ko koy gam-gamleel ci àq àqu ne moom rek la jaam ñi war a nekkal jaam jàppee ko seen yàlla li nga xam ne moom la ñuy jaamu di ko màggal màggal gi tàmbali ci seen xol yi ñu màggal yàlla subhanahu wa taala <coughs> ci dayoo bi nga xamante bi moom borom bi subhaanahu wa taala am na ko ci ne laysa ka mithlihi shay amul kenn koo xamante ni mën nañ koo jël di ko méngaleeg yàlla subhaanahu wa taala fala tadribu lillahi al amthal inna allaha yaalamu wa antum la taalamuun amul kenn ku ñu jël gam-gam leel ak yàlla subhaanahu wa ci lenn ci li nga xam ne moom yàlla moo ko jagoo moom yàlla yàlla la leneen li ci des lépp ay mbindeef lañ yu doyee di loolu fa moom soxlaal ko lépp yaa ayuha annaasu antum alfuqaraau ila allah wallahu huwa alganiyu alhamid in yasha yudhibukum wa yati bi xalqin jadid moom yàlla subhaanahu wa taala mooy ki doylu soxlaaluñu dara moo tax moo waxoon wa qaalu ittaxada allahu waladan subhaanahu huwa alganiy moom yàlla subhaanahu wa taala mooy ki doylu soxlaalul jaamam ñi lenn te moo leen taxawu ci seen lépp lépp lépp mbir moom mooy alqayyum lépp lu ñu am rek ak suñu nekk ci lépp lu mën a doon yàlla moom moo ñu ci taxawu bu jaam bi xamee loolu nag xam màggaay bu toll noonu ak dayoo bu mel noonu war na jomb di jël lenn loo xam ne àq yàlla moomu la mu koy jël di ko jëmale ci jaam wala muy gis ci jaam lenn loo xam ni war na koo mën a yéem yéem yéem yéem yéem ba muy jël lenn ci place boo xamante ni yàlla la fa war a teg ci ni muy gëmee yàlla mu koy mu fi mu fay teg mbindeef ni moom lépp loo gis ci mbindeef mu yéem la rek delloo ko ci màggaayu yàlla ndax mbindeef mënalul boppam dara moomalul boppam dara xamalul boppam dara defalul boppam dara lépp lu mu am yàlla moo ko ko baaxee kon boo gisee ci mbindeef dara lépp lu mu mën a doon ci loo xam ne lu la yem la delloo ko ci yàlla te loolu moo nekkoon doxalinu yonent bi alayhi salaatu salaam ci ne daawul nangu mukk ñu jël ko di jëmale ci moom yenn yi nga xam ne day puus nit ñi ñuy xaabaabal ci moom di ëppal ci moom ay tagg ak wax sax bu ñu ko mësaan di bëgg a jëmale ci ci moom mu delloo leen bu ñu mësaan di di di jëflanteeg moom ci màggal gi ñu koy màggal ak ni koy fonkee yoo xam ne xam na ni bu ko bàyyee mu jéggi dayu ëpp mu tere leen ko ñëw nit ñi jóg mu ne déedéet man eh, ajabahu an yatamathala alrijaalu lahu qiyaaman falyatabawa maqaadahu min naar koo xamante ni man ajabahu wala man sarrahu an yatamathala rijaalu lahu qiyaaman falyatabawa maqaadahu min naar koo xam ne day bëgg nit ñi di ko jógal kooku na waajal wàcc waayam safara xeet doxalin yooyu mu daan doxalee ak ñi nga xamante ne bi moom mooy ay saxaabaam loolu yëpp ngir bañ ñu génn ci fondamental boobu nga xamante ni bu ama am solo la ci wàllu ngëm yàlla ci wàllu diine te mooy tawxidullah mooy wéetal yàlla nga xam nit ki bu ko ñàkkee ñàkk na lépp nit ki bu ko ñàkkee diinam yàqu na ba faw faw faw ba baa mu koy amaat bu ko yàlla nattoo nag ba mu yóbbaale loolu faatu alkande bu rey topp na ko ndax inna allaha laa yaxfiru an yushraka bihi wa yaxfiru ma duna dalika liman yasha yàlla du jéggale bokkaale mooy jël ki jaam bi di jël ak xam di ko jox mbindeef di ko jox keneen ku dul yàlla yàlla du jéggale bàkkaar boobu bu ko nit faatoo daj ko yàlla yàlla du ko jéggal innahu man yushrik billahi faqad xarama allahu alayhi aljanna ak li mu waxoon ne walaw ashraku la xabita anhum ma kaanu yaamaluun kii def bokkaale boobu bu ci tàbbee yàlla dafay neenal ay jëfam ki faatuwaale ak bokkaale yàlla dafay araamal ci moom aljanna <clears throat> loolu kon nekk lu doy war loo xam ni jaam bi war na xam place bi nga xamante ni tawxidullah boobu mu wetal yàlla boobu am na ko ci diineem bu ko defee mu bàyyi ci xel bu baax a baax a baax a baax xam ne bu dajeek yàlla subhaanahu wa taala fekk ne mi ngi seede loolu comme na ko yonent bi alayhi salatu wasallam waxee woon ci jataay bu mu toog ñu laajte fa kenn am ku ne ah kooku de naafiq la laa yuhibbu llahu laa yuhibbu llaha wa rasulahu naafiq la boo xam ne bëggul yàllaa ko yonentam yonent bi alayhi salatu wasallam ne lu tax ngeen di wax loolu daal di ne ndax nekkul di wax ndax nekkul di wax laa ilaha illa allah yabtagi bi dalika wajha allah alaysa yaqulu laa ilaha illa allah yabtagi bi dalika wajhu allah qaalu bala yonent bi alayhi salaam ne leen ndax nekkul di wax di seede ne amul lenn lu ñuy jaamu ci dëgg lu dul yàlla di wax laa ilaha illallah te la ko ko tax di wax du leneen lu dul am jëmmi yàlla ji am ngërëmul yàlla yàlla rek moom moo tax mu koy wax leneen taxul muy wax loolu ndax seede boobu def na ko wala def ko ñu ne ko xañ kay mu ne bépp jaam boo xam ne dikk na ëllëg yowmal qiyaam ak lu mel noonu ak seede bu mel noonu yàlla dina araamal ci moom safara xadis boobu mu ngi saxiixul Buxaari loolu moo tax kon loolu nit ki mooy garanti bi gën a rëy boo xam ne da ko dajeeg boroom ku ku ànd daje ak yàlla fekk ne yaa ngi seede seede boobu noonu mu dëggu ci yow yàlla araamal ci yow aljan safara yàlla araamal ci yow safara garantiral la aljanna muy tawxidullah même bu nit ki amee ay jafe ci ay bàkkaar yi mu def ak lu mu mën a def tôt ou tard mujjam aljanna lay doon ndax tamit xadis yu mel ni léeg-léeg ñenn ñi niñ koy déggee mooy jàpp ne kon loolu rek bu ko nit ki seedee doy na lu ko neexati ci ay bàkkaar mën na koo def wàllu diinam kooku amul tawxiid ndax dafa bokk ci am tawxiid mooy nga nangul yàlla màggal yàlla ragal yàlla wekk yàlla ba tënku ci li nga xamante ne bi moom mooy ay santaaneem mooy tunde ko ay tereem loolu day dugg ci dëggu gi nga xamante ni baat bi nga wax ne laa ilaha illallah ne seede nga ko ne nangu na nga ni amul kenn ku dul yàlla koo xamante ni amul kenn rek ku ñu war a jàmm ku dul yàlla yàlla rek mooy yàlla ji ñu war a jàppee yàlla bu dee seede boobu dëggu na ci yow day jur ak tënku ndax bu doon lu ñuy wax rek sànni ko kon yéefar yi duñ ci xeex ko yonente bi alayhi salatu ba ci tuur seen deret ndax bu boobaa kon dinañ ko nangul wax ko ba noppi dem nekkaat ca lañ nekkoon waaye xam ne boo ko waxee mu soppi sa dund boo ko waxee mu tënk say jëf moo taxoon ñu lànk ne duñ ko wax ajaala al alihata ilahan waxidan inna hada la sheyun ujaab lañ ko waxoon ba mu sàkkoo ci ñoom benn kàddu googu ñu wax ko dañoo jóg di faxas seeni yére di defaruwaat jug dem romb ko woon ko ginnaaw naan ndax dafa bëgg a jël suñu yàlla yépp def leen jenn yàlla lii de mbir mu yéeme la mbir mu doy waar la xam nañ lam jublu woon ci seede gi mu doon sàkku ci ñoom ñu seede ko kàddu googu yaa ayuha nnaas qulu laa ilaha illallah tuflihu di wër ci seen kër yi di wër ci seen daluwaaye ci aj gi naan leen wax leen laa ilaha illallah ngeen texe kenn ci ñoom nangu koo wax xamoon nañ ne du kàddu gu ñuy wax rek daal di koy sànni dem sa yoon waaye seede la boo xam ne bu ko bu ko nit ki seedee dafay nekk lu dëggu ci moom loo xam ne ci xolam lay tàmbalee mu wax ko ci làmmiñam tënku ci ci ay jëfam loolu nag bu ko jaam bi defee indaale ko yowmal qiyaam pas-pas bu mel noonu diina ju set ju mel noonu wéetal yàlla gu mel noonu loolu mooy li koy sauver ëllëg beneen bi ci des mooy wa anna muhammadan rasulullah seede itam ne muhammad ndawul yàlla la mooy yàlla moo ko yebal li mu indi ci yàlla la ko jëlee wa ma yantiqu an ilhawa in huwa illa waxyun yuuxa yàlla moo ko yebal yaa ayuha ya qul yaa ayuha nnaasu inni rasulullahi ilaykum jamian inni rasulullahi waxal nit ñi présenté wul ci nit ñi nee leen yéen doomu aadama yi man yonen yonentub yàlla laa bu jëm ci yéen yàlla mooma yónni ma ñëw ci yéen kon bu fekkee nit ki xamee na ko noonu xam ne moom rasulullahi ila naas ba pare nag jamian mboolem seen yonent bu yàlla la nit ki gëm loolu seede ko kon boobaa dina ko dëggal ci lépp loo xam ne yonent boobu jàngale na ko dina ko nangul ci lépp li nga xamante ne jàngale na ko wa ma aataakum rasulu fa xuduhu wa ma nahakum anhu fantahu li leen yonent yàlla bi jox jël leen lim leen tere bàyyi leen dina ko bëgg mbëggeel goo xam ne du ko bëgg kenn ci doomu aadama yi ba ci boppam laa yuminu ahadukum xatta akuna ahaba ilayhi min walidihi wa waladihi wa nnaasi ajmain kenn ci yéen du am ngëm gi mat li fekk gënaluma ko njabootam gënal ko ay waajuram li mu waxoon omar ibn alxataab bi ko omar ibn alxataab ne ko la anta ahabu xab ilaya illa min nafsi qaala xatta min nafsika ya omar qaala al aan ya rasulullah la anta ahabu ilaya min nafsi qaala al aan al aan ya omar omar ibn alxataab ci xadis bi nekk ci saxiix bi mu waxee yonente bi alayhi salatu wasallam ne ko fekk ñu ànd di dox mu ko maa ngi seede ne yaa ma gënal bépp doomu aadama buy dox ci kaw suuf ba mu des sam bopp mu ne ko matagul yow Omar mbëgg gi des na bëgg gi nga ma war a bëgg dafa war a àgg ci ne sax maa la war a gënal sa bopp mu ne ko maa ngi seede ci yàlla ne yow yonent maa ngi wat ci yàlla ne yow yonent bi alayhi salatu wasalaam jamono ji may wax yow nii yaa ma gënal sama bopp annabiyu awlaa bil muminina min anfusihim kon loolu moom mooy li jullit war a séq ak yonent bi alayhi salatu wasalaam mu nekk mbëggeel boo xam ne gu dëggu la du nekk mbëggeel goo xamante ni mbëggeelu fàtte soog ak wax ay xar baax ak yu mel noonu rek ci la tënku ci la yam te nit ki du ko jëmbal ci dundam nit ki ni muy jëmbalee dund mbëggeel gi ci dundam mooy li ku mel ne Abdallah bin Mas'ud wax ne ay nit dañ doon woote woon bëgg nañ yàlla yàlla daal di leen nattu yàlla éprouvé leen ne leen bu dee seen bëgg googu ngeen di wax ne bëgg ngeen ko yàlla dëgg la topp leen yonent yàlla bi qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allahu wa yaghfir lakum loolu la ñuy dëggalee ak mbëggeel waaye mbëggeel goo xam ne ka ngay bëgg njubam duñ la ca séen lam daan def ak nam meloon ak yooya doo ca roy lenn lenn lenn li la li la ci neex daal mooy wàllu folklore beek wax ju ëpp jeeg xar baax yeeg yooyu ñuy wax ngay nekk di fette soog di def yooyu mbëgg nga fa yem bu diglee lii kenn du la ca séen bu teree lii ñu séen la ca bu dee lii la daan def ci mbaax ak ci hadiyam ci doxalinam doo ko roy yaa ngi ca yeneen ba ba noppi di woote wane bëgg nga ko mbëggeel googu dese naa dëggu nit ki bu bëggee yonentu yàlla bi alayhi salatu wasallam daf koy bëgg bëgg gu mel ne bëgg gi ko saxaaba yi bëggoon tax amuñu woon sago ci moom ci niñ ko doon royee ak niñ ko doon toppee ak bëgg di ko jege ak di xool li nga xam ne mooy njàngaleem ñu ciy tënku ndax ni ñu bëggee woon yonent bi alayhi salatu wasalam bëggeel googu moo dëgg waaye bëgg mujj jamono ji coow la gën a doon ka lu lu dëggu coow coow lu bari bu fekkonte ni ni ñuy wax ci bëgg yonente bi alayhi salaam lu dëggu suñu la suñu dund dina soppeeku suñu dund dina soppeeku bu baax a baax a baax a baax waaye bëgg gi léeg-léeg dafay des laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana liman kaana yarju llaha wal la al axir wa dakara allaha kathira royuwaay modèle dégg nañ fi ko toog naan bi alayhi salaam du modèle subhanallah yonente bi alayhi salatu salaam moo war a nekk suñu royuwaay ci lépp ci lépp lépp lépp ba ci suñuy mbiri àdduna lépp luñ ko ci mën a roy dañ ko cee war a roy kan moo gën a rafet njub yonent bi alayhi salaatu wasalaam mais malheureusement nax nañ jullit ñi nax leen a nax a nax a nax dominer leen yàq seeni xel ak seeni xalaatin wan leen yeneen seytaane rafetalal leen ko taaral leen ko ànd ak gaami ba dañu sax am complexe ci seen diine lim leen jàngal ak nim leen yaree ak yi leen seen yonent jàngal xamal leen ko ci seen wàllu nekkin ñu sàgganee ko jël yeneen modèle yu ute ak loolu ba ki nga xam ne mooy jéem a xeeñtu njub loola necc sax nit ñi dañ koy doye dal ak yeneen yoo xam ne tamit sos nañ ko fi fent ko ay nit yoo xamante ni seytaane ñëw na réyal leen ci xeli nit ñi réyal leen ci xooli nit ñi ndax seytaane dafa doy waar léeg-léeg buy jàmm daf koy ci loo xamante ni subhanallah tactique bu doy waar boo xam ne nit ñu bari duñ ci bàyyi xel liñ tuddee al ishghal bil mafduli an il faadil loolu ci tactique yi gën a doy waar ci tactique gu seytaane bokk na ci léeg-léeg nit dafay am jëf ju baax ju màgg a màgg a màgg ju nekk ci kanamam joo xam ne jamono jii li gën mooy mu def jëf bi seytaane bëgg ko ko tere te xam ne bu ko ko teree te tegul ci loxoom dara kooku du ko nangoo bàyyi faw mu am leneen lum ko occupé ba jëf joojo du ko def même bu dee sax dina def leneen mais loola na gën a néew yool na gën a néew ci mbaax seytaane ñëw jël def ci xelam beneen jëf boo xam ne lu baax la naam waaye jamono jooju nekkul li gën ba ko seytaane di gàllankoor boobu moo gën seytaane ñëw jël jëf jooju tàbbal ko ci xelam réyal ko ci xelam def ko ci xolam ba kooka ne ci loola temps boobu yëpp mu passé ko ci ba jëf jële jëf di baax jële du ko def loolu mooy tactique bu seytaane doxee ci diggante ñu bari ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam jullit ñu bari seytaane dox na seen diggante ak bi ba niñ ko war a xamee xamewuñ ko noonu niñ ko war a bëggee bëggeewuñ ko noonu ni ñu war a jàngee njubam jàngeewuñ ko noonu ñu ko war a royee royewuñ ko noonu ndax ay nit yoo xam ne am na mbaax gu nekk ci ñoom naam am na diina ju nekk ci ñoom naam mais seenuñu sax yonent bi alayhi salaatu salaam seytaane ñëw jël leen réyal leen ci xolu ay nit ba nit ñooñu jël ñooñu teg leen ci palaasu yonent bi alayhi salaatu salaam ci seeni xol ba fàtte yonent bi alayhi salaatu salaam loolu technique la boo xam ne na ko kenn ku nekk xalaat xalaat ko ci boppam dina gis li nga xamante ni moom laa koy wax yàlla nañ yàlla sàmm yàlla nañ yàlla musal ci cheytaane hada wallahu aalam wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wassalaamu aleykum wa rahmatullah